waa groupe nopp sa jëkkër ah kenn du yéen ndeysaan macha allah aaw aaw yaa ngi nii yéen baax bilaay yéen a baax yéen a gore lépp lu fi baax yéen a xool leen ndeysaan